bismillahi irrahmani irrahim wasala allahu wasallam ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi alkiram wa man iqtada bi hadihim ila yawm iddin incha allah maa jërëjëf ci kàddu yu leer yi nga ubbee jotaay bi ñuy tàmbalee ci kàddu rek ci nuyoo ak ziyaar mboolem ci weeru tedd bi ci weeru koor di jiite ci nuyoo bi ak ziyaar bi jóge ñu taalibe Sëriñ Tuubaa yi mu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di nuyu di ziyaare mboolem ñi ànd ak ñun ci waxtaan wi moo xam ñu ngi fii ci jotaay bi wala ñu ngi ci yeneen i barab ànd koog ñoom ci jumtukaay yu xarale di ñaan yàlla ci dugg ci weeru koor bi bismillahi arrahmani arrahim ñu mën cee génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp ànd ak nangu jaamu yàlla te may nit ñu fekk waatu ay ati at te lépp ànd ak sago ak tal ak ñu dugub lislam di nuyu di jagleel nuyu ak ziare waa daayira bi daayira muqaddamatul xidma bi nga xamante ni jotaay yii ci seen taxawaay la amee ñu rafetlu liggéey bi ci lu weesu ak fii ñu toll di am yaakaar it ci liy ñëw di leen ci ñaanal yàlla ngërëmul sëriñ bi ak tawféexam tomb bi ñu sàkkuwoon ci ñun ñu weccante ci xalaat yéen yéen ñi ànd ak ñun jotaay bi mooy xeetu njàngaliin mi am ci biir Tuuba yéen màndarga lañ ràññee ko fu mu nekk nii ak naka lañ ko mën a séentoo ci li ñëw ci at yi di ñëw ci tàmbali bi dañuy wax rek ni xam-xam mooy fondement mooy laytaayu bépp yokkute jëm kanam li ñuy tudde tanmiya wa taqaddum ci yépp askan askan wu bëgg a jëm kanam bëgg a amul yokkute mën ta ñàkk jox yitte xam-xam xam-xam mooy jumtukaay bi gën a gaaw ci xeex di koy ñaaw ak ñàqte mooy jumtukaay bi gën a gaaw ëpp solo ci sàmm say baax ak say aada ak say pas-pas ak say cosaan barab biñ koy jànge nag moom la ñu tudde daara wala l'école mooy daara ñi nga xamante ne barab bi ñuy faje am na turu boppam fa ñuy yaxantoo am na turu boppam barab yi ñuy jàng ak jàngale di fa yare it am na turu boppam mooy daara kon daara barab la boo xamante ni li ko tax a jóg mooy soppi jikkoy soppi jikkoy nit ñi soppi jikko yi jëmee ko ci lu gën jëmee ko ci lu baax lu gën génne leen ci réer ba noppi soppi dundiinu nit ñi ci lu gën mooy jumtukaay bi nga xam ne tamit ci la ñuy sàmmee suñu identité liñ ñuy ràññee ñun ay jullit wala ñun ay sénégalais wala ñun waa Tuubaa mooy jumtukaay bi jokkale nit diggan nit ci démbam ak tayam di ko waajal ngir ëllëgam tey buñ taxawee fii xam naka la yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa jullee naka la daa woore naka la daa jëflanteeg njabootam naka la daa jëflanteeg ñeneen ñi doonu toon ay jullit yooyu yépp dafa tolloog ne xam-xam moo fi jaar mooy kon daara moo ñu sàmmal loolu ba mu egsi ci ñun ñu war koo sàmmit ba dugalaat ko ci yeneeni loxo kon daara l'école muy barabu jàngukaay yi am ay liggéey yu ama am solo yu muy def ci jëmm ji ci lënkale gu mu koy lënkaleeg aw askanam mu doon loo xamante ni nag ay jubluwaayam dafa war a leer war a dëppoog aajo yi barab biñ koy taxawale war a sàmmonteeg barab ba lim ràññeekoo yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi xel ci bépp daara bu ñuy taxawal ci barab dañoo war a bàyyi xel soxlay barab ba ak ra- li mu ràññee ko soxlay waa barab ba yooyu yëpp ci balaa ñuy tëral am njàngaleen ci ab dëkk su ko defee nag ndegam barabu jàngukaay yi la ñuy waxtaane ci Tuubaa dana yell ñu def jaar ci du gaaw wàccuwaayu xam-xam ci yoonu murid ak jubluwaayu sàkku ko buñ koy sàkku taalibe bi buy sàkku xam-xam lan moo war a nekk jubluwaayam ci sàkku xam-xam boobu ci ni ko sëriñ bi sëriñ Tuubaa radiallahu anhu rëddee waaye laataa loola dañuy junj ci lu gaaw rek ni xam-xam moom diiney lislaam diiney xam-xam la diiney yokkute jëm kanam la te loolu lépp bari na ay màndarga ak yu koy firndeel waaye buñ ci tuddee rek ni alquranul karim bi nga xamante ni mooy téere bi mooy téere bi jullit ñi di dellu baat ba ca njëkk a wàcc santaane la ci wàllu sàkku xam-xam mooy iqra loolu rek ab junj la bu doy sëkk ci ne jullit bi am julliteem munta mat ci lu dul lu war a yittewoo xam-xam addunaam wërta mën a jag diineem wërta mën a jag alaaxiraam munta jag ci lu dul xam-xam am ci yoon xam-xam boobu nag mboolem réew yépp yépp réew yi yépp jox nañ ko yitte réew mu nekk ci charte nday réew mi gën a kawe ci ay delluwaay def nañ ci ni sàkku xam-xam àqi doomu waay réew mi la sa nguur gi moo ko war a taxawoo ci noonu nag Tuuba ni ko ab dëkk boo xamante ni li taxoon Cheikhul Xadim mi ko sanc taxawal ko li taxoon mu sanc ko mooy mbiru diine bëgg mën a dund diineem dañuy mën a wax ni kon Tuuba dëkku diine la nekk googu mu nekk dëkku diine dëkk lislaam dañuy séentu kon ci dëkk bi ak waa dëkk bi ñu jox yitte xam-xam lool waaye nag bàyyi ci xel melokaan woowu buñ ne dëkku diine la aw melokaan la waaye bàyyiwu ci wàllu xel tamit dëkku diine yan aajo lay am ci wàllu jàng ak jàngale lan mooy ràññale Touba ak yeneen dëkk yi ci biir Sénégal yooyu yëpp ñu bàyyi wàllu ko xel ci bépp tëralin yuñ fiy tëral ci wàllu njàng mi Cheikhul Xadim radiallahu anhu mi nga xam ne nag moo sant dëkk bii xam gum xam loolu moo tax lu joxoon xam-xam yitte lool yitte joo xam ne egg na ci wax ni xam-xam mooy jumtukaayam bi muy xeexe lépp lu bon bi muy jàmmaarloo bépp noonu moo xam noonu bakkan la noonu yaram la wala noonu moroomam doomu aadama mu taxaw ci kanamam la xam-xam mooy jumtukaay bi muy jëfandikoo ngir soppi aw askanam ngir dekkal wala dundalaat sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamante ni mu ngi woon ci yoonu raaf ci ay jamonoom loolu tax tasaare xam-xam nekkoon yitteem ji jiitu ci yitte yi mu jëfandikoo mbooleem jumtukaay yi mu amoon yépp nag ci ni ba mu waree jàng jàng na ba mu waree jàngale jàngale na bu mu waree taalif taalif na jëfe na xam-xam bi ko yàlla may soññu ne it ñu toppoon ci ginnaawam ngir ñu yittewoo ci wàllu xam-xam kon mboolem jumtukaay yi mu amoon yi nekkoon ci loxoom yépp jëfandikoo na ko ngir dundal xam-xam Tuubaa gi nag mu sant ko ngir jaamu yàlla jaamu yàlla nag munta yéwén àdduna it munta yéwén ci lu dul xam-xam da koo lal looloo tax bi mu ko taxawalee rek mu wax yéene ji tax mu taxawal dëkk bi daa di taalif ak xasida goo xam ne mboolem lim ci mébét lépp wax na ko ci ngir ay jeexi jaaxaal ay demal ak dikkalante bañ cee am muy xasida googu nga xam ne taalibe yi yaakaar naa ni ñu ci bari xam nañ ko mu Matlabul Fawzayni jamono bi mu taxawalee dëkk bi ci la ko taalif bu doon ay ñaan ngir delloo cër yàlla xam ne du sotti ci loxoom la sottee ak coobareem mu ñaan ci moom ngir mu sottalal ko mbooleem mébét yi mu am ci dëkk bi ci njëlbeen xasida googu fekk nañ ko fi bu mu santee yàlla ñu ko jàppandalal def ko mboolem luy ay yitteem muy yittewoo diine yittewoo ay farata ak sunnaam mu sant yàlla ni ko sant naa la bu baax yow mi ma indi ci barab bii nga xamante ni mboolem li ma daa gàllankoor ci yeneen barab yi ci jaamu yàlla ak ci tasaare xam-xam dindi nga ko fi yow mi gën a yéwénal sama sama nekkin sama yar sama jikko yow mi ma wommat ci dëkk bii jëme ma ci xam-xam yi foofu nag du lu am solo lu mat a taxaw الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسن- وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى معاقني sant naa la yow mi ma indi ci barab bii nga xamante ni lépp luy gàllankoor dindi nga ko fi jamono yooye gàllankoor amu fi ndax dëkk bi foofa dara nekk fi fii xëy na gàllankoor jamono nii ñàkkum ndox ak ay yu mel noonu xëy na waaye gàllankoor bi doon am ci digganteem ak tubaab bi ak digganteem ak jaxasoo nit ñu wër te jaxasoo yooyu boobu amagut ci dëkk bi fii bi mu ko sosee ci boobu benn kër rek la dàcce dool nag ne ko yow mi ma indi fii yow mi ma bijj jëmuma ci xam-xam yi wa jarrani fiihi ila al ulumi wal fawzi wal amali bil maalumi yow yaa ma xëcc jëmuma ci xam-xam yi jamono boo xam ne bi muy sanc fii am mbàndin la ay garab ay mala ñoo ci am bu fi wax waxi xam-xam yi def ko muy mbooloo kon kooku gisiinam sori woon na lool kon loolu mébét ñu mu waroon a sottal la ci dëkk bi wal fawzi wala amali bil maalumi ak dëkk jàppandal ci lépp luñ ci xam muy néew ak bari ñu mën koo jëfe daal di ci biir xasida boobu tamit ci lay ñaane boroomam mu def dëkk bi mu doon dëkk boo xamante ni xam-xam ragal yàlla diine ak yokkute ci doxeenu àdduna ak ci doxeenu diine lépp dafay lënkaloo diisu ko tàqale ad'uka an taj'alahu daara tuqa wal ilmi wa diini wa daara al irtiqa daa di koy ñaanaat tamit nag ni ko bëgg naa ba faawu ba faawu muy baat bu am solo bu mat a taxaw nga defal ma dëkk bii di Tuubaa mu doon barab diif di sàkkoo xam-xam diif di xalaate xalaat yu jub yu baax yu yëwal diif di sàkkoo dégg lépp lu baax wajaalhu daban maskana altaallumi wa mawdaa alfikrati waltafahumi wa maskana alirshadi waltaalimi wa maskana altaswibi waltafhimi mu mel ne fii dafay lënkale ñaari nit ñaari xeeti nit ki nga xam ne moo moo toll ci jàng war a jàng mu ne maskana taallum moom mooy def effort moo def coono ngir jàng ngir jéem a xalaat xalaat yu jub waaye am keneen ku ko war a gunge koo xam ne moo ko war a jàngal moo tax mu jëfandikoo baatu irshad wa taalim wa maskan al irshad wa taalim faaw kon ku bëgg a jàng di def ay coono ngir jàng it faaw mu gis ku ko dimbali ca njàng mooma ba tax nag saa bu njuumte amee maa ngi ñaan waa dëkk bi képp ku fi juum ci lu aju ci lu jëm ci xam-xam ak lu dul loolu gis ku la mën a gàggante wa maskan al taswibi wa tafhimi nii lu ama am solo nga xam ni kon ñun ñi fi nekk ñëpp dañoo war a dimbalante ci suñu biir ki toll ci jàng na jàng ki toll ci jàngale jàngale waaye ñi toll ci ubbee ak yeekat nañ koy def kon kenn waru fee toog ci loxoy neen mu wax nag wax ju mu mu wax yu bax yu bari nag ci wàllu jëm ci wàllu xam-xam seddali solo sum am ak sàkku buñ ko war a sàkku sëriñ bi wax ci lu baree baree bari dana doy rek ñu dund ci fi muy wax ne tasaari'u lil ilmi ajma'ina li wajhi dil jalaali qaasidina yéen ñëpp yéen ñëpp ñu koy diglu ñëpp góor-góor ñu leen ca gaawe ko nag gaawe ko dem sàkku dundali xam-xam sàkku di xam-xam yéen ñëpp te bu ngeen koy def nag ne yàlla tax li wajhi dil jalaali bu ngeen koy def ne yàlla tax kon nit ak Tuubaa buy sàkku xam-xam yàlla la cay jiital ndax loolu la ko sëriñ bi sant wax ci wax yu bare nag wax ne nag lépp lu baax ci àdduna ak ci àllaaxira mi ngi aju ci xam-xam ak jëfe xam-xam fal ilmu wala amalu jawharaani li xayri yi daarayni yajlibaani ci noonu nag la daal di soññe ñëpp daal di tàmbalee tudd ay ay catégorie ay ay nit tudd ndaw ñi tudd waxambaane yi kenn ku ne mu jagleel leen ay ay santaane ak ndigal ginnaaw bi mu digalee ñëpp yaa ayuha sibyaanu laa tashtahilu an il huda wa bil ulumi ishtahilu daal di dem ci waxambaane yi ñooñu mooy ndaw ñi yittewoo leen xam-xam leneen lu dul ak njub bu mu leen so so bu mu leen soxal dem leen sàkku di xam-xam ci seenu ndaw waxambaane yi mënu leen su ngeen ragalee gàcceeg ëllëg gàcceeg àdduna ak alaaxira na ngeen yittewoo xam-xam na ngeen jiital xam laataa ngeen di jëf yaa ayuha shubaanu in xiftum xajal faqaddimu taalluman ala amal muy loo xamante ni kon lu mat a téye la daan na nag na ngeen ci góorgóorlu ci ñaar yooyu xam ak jëfe xam-xam waaye nag boole koog lépp luy yëwanal seeni jikko seen jikko fa fiihi majtahid wa fi tasfiya min kulli aafatin wa fi tanqiya kon di su sàkku xam-xam ngir ay diplôme rek ngir lijaasa rek ngir tut wut turu àdduna rek waaye dañ koy sàkku ngir yàlla waaye sàkku yi ngir gën a yëwanal suñuy suñu jikko ak suñu nekkin ci kaw suuf loolu mooy lu aju ci feddali njariñul xam-xam ak soññe ci ci ñu sàkku ko mu daal di toftale xam-xam yi bañ ñoo bàyyi nii rek ñu mel ne ay lëkk yu nekk ci biirub lay waaye mu toftaleel ñu xam-xam yi ni ñu xam-xam yi moom ci gisiinam xam-xam yi yi gën a aajowoo yi ñu war a jiital ci sàkku bi mooy yii muy bëgg a tudd wa afdalul ulumi mutlaqan lada man alimu tawxidu man lam yalida xam-xam bi ngeen war a jiital ci lépp lu ngeen di sàkku na doon xam-xamu tawxid mu ngi gi yëwaneen seen pas-pas ndax pas-pas bu sellut bu baaxut jëf munta baax ci njiirum ci ci diiney lislaam bu bu xam-xamu gëm yàlla jàllee xam-xamu dégg alquranul karim bu jàllee xam-xamu xadis muy wax yonent bi salallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy leeral alquran wa baadahu tafsiru walxadisu wa baadaha amman lahu taxdisu bu yooyu jàllee ñett yooyu mu tudd muy xam-xamu gëm yàlla muy tawxid xam-xamu dégg alquran tafsir xam-xamu wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy leeral alquran di xadis bu yooyu jàllee fiq na teg leen ci fiq muy xam-xam bi mën a tax lépp lu ngeen di jëf mën koo natt ci nattuwaayu xam-xam ñu xam ndax baax na wala baaxu muy fiq bu jàllee nag mboolem yeneen xam-xam yépp nga xam ne daanaka moom da koy tudd ay jumtukaay mën ngeen ko caa teg alfiqhu tumma baadahu al alaatu rumil jamia yatika silaatu mu ne nag toftale gii ma leen koy toftaleel ngir mu gën a leer rek la waaye bu ngeen dee sàkku na ngeen sàkku yépp na ngeen sàkku yépp bu leen sàkku bii di bàyyi bii ndax ñoom dañuy mottalante ci seen biir boo jàngee xam-xamu tawxid bi yéwénal sa pas-pas di ko sellal ci jàngoo luy tax nga dégg alquran luy tax nga xam wax yonente bi mi nga xam ne moom lañu yàlla yónni woon ci nit ñi jàngoo it di tax say jëf ngay man boo ci juumee mën koy jubbanti xam kañ lay wér kañ lay yàqu yooyu boo ko jàngut bu baabaay duutu am solo moo tax mu ne la rumil jamia na nga sàkku yépp yow taalibi bi yow mi koy déglu kon xam-xam yooyu ñu tudd xam-xamu diine dañ koy war a jàng yépp xam-xam yi muy tudd ay aalaat ay jumtukaay muy xam-xami àdduna bi yépp nag moo xam yi jëm ci làkkaalaama la moo xam yi jëm ci métier la moo xam yi jëm ci yeneen yépp nañ ko jàng ndax it dañ koy soxla kon noonu lañu toftalee wàllu xam-xam yi ci gisinam moom keneen ku am beneen gisin moom kooko moom la soxal waaye moom lii la gis ni lii la war a tëdde bu ñuy jàng xam-xam it la cay nekk jubluwaayu ginnaaw biñ jiitalee yàlla ñeenti mbir la ci tudd taalibe murid bi buy jàng xam-xam buy sàkku xam-xam bu cay liggéey na ci bàyyi ñeenti xel na ci bàyyi xel ñeenti mbir fal taqsudu arbaatan lada ibtidaa taallumin li kay tafuuzu bil huda bi ci njëkk mu ne na ngeen bu ngeen dee jëm di wuti xam-xam na ngeen ci bàyyi xel ñeenti mbir bi ci njëkk mooy alxuruj min dalali awwaluha alxuruj min dalali na nga fas yéenee génn ci réer ba set ci wecc yow loolu moo lay tàqale yaag mala yi loolu moo leen di tàqale fexe moom ak réer bu ñu koy tudd bu la ci kenn tudd awwaluha alxuruj min dalali wa saani nafru bi nafru xalq dil jalali ñaareel ba nga fas yéene cee jëriñ bindeef yi muy lu yaatu lool nag lool du rek xam-xamu diine bi ngay mën a jiitee nit ñi di leen wàmmat ci seen wàllu dundinu diine waaye ba ci xam-xam yi jëm ci wàllu dundinu àdduna taalibu sëriñ biy jàng mbay wala mu jàng paj wala mu jàng beneen xeetu xam-xam boo xam ne askan bi da koo soxlawoo te ba mu koy jàng mu yéene ci jariñ aw askanam bu boobaa mi ngi ci ndigalul sëriñ mook ki jàng diine ñëw di jiite di taxawu nit ñi seen i néew di leen tuddal seen i doom buñ juumee mu di leen gàggante ci wàllu diine ñoo ca yem kepp ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci ndigalul sëriñ bi kon muy ñaar awwaluha alxuruj min dalaali wa saani nafu xalqi dil jalaali ñetteel ba mooy al ixyaau min ulumi nga fas yéenee bokk ci ñuy dundal xam-xam te bañ koo dunde wala di ko nasaxal ñuy dundal xam-xam fa nga ko fekk na nga fexe ba ak yokkute am te ca nga bokk te ña koy yokk loolu mooy al ixyaau lil ulumi loolu nag ñay jàng di jàng ñay jàngale di jàngale ñay gëstu di gëstu ñoom ñëpp buñ leen boole ñu ngi dundal xam-xam ña dégg benn làkk di toxal xam-xam bi di ko yóbbu ci yeneen làkk ngir ña ca jotu wutoon mën caa jot ñoo nit ña nga bokk ci ñuy dundal xam-xam kon ci waxeenu jamono daal mooy li ñuy wax al baxsul ilmi mooy gëstu ndax xam-xamit faw mu dund bu dundul rek day daal di taxaw kon yow taaliba murid bi bul bokk ci ñi koy nasaxal bul bokk ci ñi koy fekk fa mu nekk nga bàyyi ko fa nekk ci àdduna ba jóge fa jóge amoo ci dara la ci yokk du ci jàng du ci jàngale du ci gëstu du ci yaatal du ci tarjama maanaam toxal ko ci yeneen làkk du ci dara amoo ci benn taxawaay loolu moom taalibe murid bëru ko def mu ñetteel bi kon dundal xam-xam ñeenteel bi mooy nag loo xam nga jëfe ko bañ a jàtt xam-xam bagage booy yanu mu di la diisal te doo ci jariñu wa raabiu la amalu bil maalumi kon xam bu doon amul sant mooy jëfe taalibe murid bi kon buy jàng ñeent yii la ci war a bàyyi xel fas yéenee génn ci réer ba fu ñuy tudd fu ñuy tudd ak réer moom bi du ca bokk jariñ mbindeef yi ak fu ñu mën a nekk te bañ koo xool seeni melokaan ak luñ gëm ak luñ gëmut lépp luñ leen mën a jariñ ci xam-xam mu jéem leen caa jariñ bokk ci ñuy dundal xam-xam ci di ko yaatal di ko tasaare bokk ci ñi nga xam ne buñ xamee dañ koy jëfe te bañ koo jë bañ koo jëfandikoo ni ko ay tiitar ñu naan am na ndomb ak tàng ndomb ak tànk sàngam ak yu mel noonu loolu taxut taaliba murid dafa war a weesu yooyu kon ñetteelu mbir moomu ci mooy jubluwaay yi loolu la ci sëriñ bi wax mu doon nag yu ama am solo yoo xamante ne nag ku nekk ci dëkk bi di yëngu ci wàllu njàng war ko bàyyi xel mooy ni kon saa bu ñuy taxawale ci barabu jàngukaay war nañoo bàyyi xel aajoy nit ñi ak aajoy dëkk bi ci teg ay programme mu njàng ca bañ rek di tege nu la neexe di jàngale nu la neexe ak noo ko gisee noonu rek warta demee noonu war nañu di dox ci lépp luy gën a yaatal xam-xam ak jëfe xam-xam ci yépp anam nag ci bépp anam loolu kon mooy li nga xamante ne moom la sëriñ bi santaane bu ñëwee nag ci jamono jii ñu toll yan xeetu njàng moo am ci Touba xam nga ne Touba bañ ko sancee ba léegi am na ay soppeeku yu baree bari yu fa xew sëriñ Touba radiyallahu anhu dëkk bu mu mas a taxawal bu nekk bu mu mas a sanc bu nekk jàng barabu jàngukaay dafay am waaye nag kenn ku ne ñetti xeeti daara moo am ñetti xeeti daara la daa def ci barab bu mas a sanc bu nekk ndax yitte yi ña ko topp dañu dafa wuute dafa am ñoo xam ne seeni yitte ak seen tolluwaay mi ngi toll ci jàng alxuraan ñooñu dañ leen di taxawal a daaree alxuraan am ñeneen ñoo xamante ni noppi nañ ci alxuraan ji war a sàkku xam-xam ñooñu dañ leen di taxawal beneen xeetu daara muy daaree xam-xam am ñeneen ñoo xam ne xat-xatu àdduna ak seeni at ak tolluwaayu àdduna egg nañ ci koo xamante ne xëy na nekk ci daara di jàng xam-xam nii ak alxuraan xëy na dana xaw a jafe bu wutal leen daara yi tarbiya di leen wommat di leen tàggat ci anam boo xamante ni xam-xam bi diine ji léegi dañ koy dund ci ay jikko waaye duñ leen ko dañuy duñ leen ko tëralal nii rek waaye dañ koy dund nga xam ne lépp luñ wax wala ñu jëfe ko mu doon jëfi ku xam doon waxi ku xam noonu la dëkk bu mas a sanc noonu la daa demee Touba gi ba mu ko sancee ci barab bii ñu nekk moo nekkoon Touba fi la kër gu mag gi nekkoon genn kër ga genn kër rek la woon moom lañ daa wax Touba genn kër ay ay ay ab ab ab làkk làkk xam naa xale yi duñ ñu bari duñ ko xam am ngeer ak ay nangam ab làkk lañ ko daa def sàkket sax amutoon ay mbaaru ngeer rek ay yu mel noonu moo fi amoon ci anam bu simple loolu moo nekkoon Touba waaye teewutoon na barabu jàngukaay yi defoon nañ ko fi ñi tolloon ci jàng alxuraan ñu ngi doon jàng alxuraan ñi toll ci jàng xam-xam ñu ngi ko doon jàng ñi tolloon ci daara tarbiya ñu ngi doon tarbiya noonu la fi nekkee juróom-ñaari at yi mu fi nekk yëpp laata mu fi jóge di dem Mbàkke Baari ci noonu nag Touba barabu jàngukaay yi fi gën a yàgg yi nga xam ne moom dañoo judduwaar dañoo Touba da ko judduwaale mooy daaree alxuraan yi ak daaree xam-xam Touba dafa jud dafa juddwa da ko juddwaale moom daara alxuraan kon ci yi fi gën a yàgg la daara alxuraan nag fu nekk nii ñu toll ci Touba ak daywa bi mu am yaatu na lool ci biir dëkk bi waaye nag xar kanamam tamit soppeeku na ci diggante bi soppeeku na bu baax a baax loola tax ñu fi fekk ñaari xeeti daara fii ci dëkk bi benn bi mën nañ ko tudde daaray cosaan mooy ñoo xamante ni seeni daara lañ yor waaye dañoo fas yéene nañ koy yore mooy na maam ya doon yore daara te seeni jamono mooy lan mooy ci wàllu jàng ak jàngale bi duñ ci fayu dañ ciy jiital yàlla duñ ci fayu amul fay daara joo xam ne du am fay xëy na xale bi bu amee lu mu joxe mooy joxe àllarba te nu mu ko mënee rek ak nu mu ko soobee la koy joxe muy daara joo xam ne lu ci ëpp tamit xale bi ciy jàng benn muy liggéeyal sëriñ bi ci toolam ñu ci ànd di ci dund wala boog muy sukkandiku ci boppam ci dundam mooy di dem di yalwaane muy daara joo xam ne tamit xeetu njàngin wi bàyyi wuñ ci xel xam-xam yu bees yi lay jàngal araf bu ne fañ ko war a génnee muy maxaarijul xuruf waaye dañ koy jàng nii ni ko maam yi ni ko ñu bari ci maam yi daa jànge xam-xamu tajwid bi lay bi lay bi lay bi lay xamal naka nga war a jànge alquran ndax alquran bokkut ak yeneen bind yi yeneen téere yi dafa am nu ñu ko war a jànge ca xam-xam bi ñu koy jàngal mooy ilmu tajwid daaray cosaan yi ñu ci bari joxuñ ko yitte kon dañuy jàng ni duñ tajwid maxaarijul xuruf amu ci waaye it dañuy yittewoo tàggat nit ki ci bind ak ci lépp luy saxal ak mokkalam looloo tax ñu daa beqi waaye daara yi xam nañ ko beqi bind di bind ay bind ci àlliwoo te te doo ko xool doo noppee tamit ci alxuraan yi nga bind kaamil ci sa loxo te doo ko xool ba noppi di jàng li ñuy wax ay boole ay tënk yuñ lay jox yoo xam ne day tax barab yu nuroo ci biir alxuraan boo fay egsee doo ko jaxase loolu la ñuy tudd ay boole yooyu yépp daaray cosaan yi am na ci ñoo xam ne fu nekk nii moom lañuy ci yow ci loolu la ñuy dox ñoom am beneen catégorie ci biir daara alxuraan yi nag daan ne ah suñu jamono kat wuute na ak jamonoy maam ya ak jamonoy baay ya kon dana laaj ñu nit nag ni ñuy jëflanteeg daara ak ñun daara xaw a amul wuute topp suñu jamono daal di taxawal ay daara ñoom yoo xamante ni dañ nit léegi daaray internat la xale yi dañuy fay dañuy fay ndax ngir yàlla dàqante wut ak fay mooy jàpp ci liggéey bi muy benn ñaareel ba lépp luy yëwénal njàng mi ak liggéey bi dafay liggéeyee ak seeni dundin dañ cay fexe ba mu gën a jëm kanam ci noonu daara yu bees yi ñu tudde daara internat ñu ci bari ci ñoom yëmatuñu rek ci jàng alxuraan kese kese alxuraan ji moom du fi jóg moo fi nekk ndax mooy cosaanul daara waaye dañ caa dolli yeneen xam-xam mooy ilmu tajwid boobu ma doon wax li lay xam-xam bi lay xamal naka ngay jànge alxuraan fan nga sañ a taxaw foo sañ ko taxaw ak yeneen yu dul yooyu xam-xam boobu dañ ko caa dolli dolli ci wàllu xayma li ñuy wax xisaab calcul am na ci ñoo xam ne wàllu informatique dugal nañ ko ci seeni daara mooy ordinateur yeeg internet ak ay nàngam am na ci ñoo xam ne kàllaamay français dugal nañ ko ci waaye nag mokk liin wi indi nañ ci soppet yu am solo mooy ni léegi xale bi njàngam baral moomu mu daa cee nga xam ne ku comme ku doonub donga ni moom wala nga jaaroon ci doo mën a xam li muy wax ndax araf yi du leer ci yow loolu dañ ko dindi ñoom fexe ba xale bi buy tudd alquran bi mu di ko tudd ci anam bu leer araf bu nekk mu génnee ko fa mu ko war a génne njàng moomu nag tax na njàngum Sénégal alqurani Sénégal mën a bokk ci joŋante yi gën a kawe léegi ci àdduna bi yi ñuy def ay Dubaï yi ñuy def ay Malaisie yi ñuy def feneen ci yeneen réew yu mag yi gis nañ ci ay doomu Sénégal léegi yoo xam ne léegi ña ngi cay am ay ngañaay waaye daaray cosaan yi ñoom mënuñoo bokk ca yooya ndax ni ñuy jànge ak ni ñu yoree seeni donga mooy tax ñoom seeni xale mënuñoo bokk ca yooya léegi nag daaray internet yu bees yi moom fexe na daanaka mën nañoo wax ne daal fexe na ba génne njàngiinu Sénégal mu dem ci bitim réew ñu xam Sénégal ci wàllu njàngum alxuraan ñu am ay champion ci ay góor ak i jigéen waaye nag ñoom joxuñ yitte wàllu bind bind ak luy saxal alxuraan ji nii ñenn ñi sax ñu ngi ciy góorgóorlu ndax bu ñuy julli weeru koor wi rawatina dañuy teg programme boo xam ne xale yi dañuy naafile bu kii jiitee tey bu ëllëgee kii jiite ñenn ñi dañoo taxawal ay école ci seen biir daara yooyu boole ko ci programme bi ñu boole ci mooy xale bi mokkaloon day wéy di tariwaale alxuraan yooyu moom ñu ngi koy def waaye liñ sobantal mooy wàllu bind ndax xëy na dañoo jàpp ni jamono ji fi mu toll ci wàllu technologie bind nii xëy na solo si bind rafet bind solo si demeetut noonu ba tax ñoom ñu sobantal ko léegi moo tax ñoom duñ bind kaamil ñu ci bari ci ñoom amul bind kaamil daara internat yi amul beq wàllu boole yi tamit duñ ci duñ ci duñ ci liggéey kon amutu bind kaamil ci ñoom ci ñu bari ci yu mel noonu kon ñaari xeeti daara yooyu am na yalwaan tamit amut ci ñoom ci wàllu yoreen yi tamit yoreenu daara yi tamit daara yi tamit lépp nekkul ci benn loxo dañu ko séddale kenn ku nekk lañ ko dénk mu saytu ko ci wàllu daara yi alxuraan yi dundiinu xale yi tamit dañ leen di toggal ci biir daara bi yalwaan amatut du yalwaanu dund du yalwaan xaalis amatut xale bi ci biir daara bi lay nekk léppam fi la koy fekk barab bi ñuy jàngee tamit du doonate ay sàkkete ki mbaar ak suufus beñ soo xamante ne ay fel da caa am amatu ci dafay doon ay mbaar yoo xam dañ koy karele yii ñu def ay ventilo yii ñu def ay kii yu mel noonu wàllu kaaraangay xale yi tamit dañ cay góorgóorlu ñu ci bari ci ñoom fu nekk nii ñu ngi ciy góorgóorlu am na ci ñoo xam ne egg nañ ci foo xamante ni seen daara dañ faa def caméra de surveillance caméra boo xamante ni ñoom dañ koy booleeg seen i téléphone di ko synchroniser ak seen téléphone nga xam ni yow sa daara boo fi yënduwutoon tey dem Dakar wala nga dem Tambacounda wala foo mën a dem ci sa téléphone da ngay xam lii xew ci daara gi xale buñ ko dóor buñ ko dóor nga xam ko ak yu mel noonu nga xam ne ngir gën a mën a bàyyi xel kaaraange xale yi ak seen wàllu wér-gi-yaram ak dundin yooyu yëpp am na ay soppeeku mooy ni kon léegi waajuru ndongo bi léegi mi ngi dugal loxoom ci wàllu njàngam doomam ci wàllu dundini doomam ndax bu doomam nekkoon ci këram léppam moom lay war kon bu nekkee feneen war na ko faa fekk te la koy dundal ak la ak lay jàppandalal ña koy jàngal seenu dund looloo tax waajur yi léegi di fay weer am na ci ñoo xam ne vingt mille ñii trente mille maanaam ñeenti junni ak juróom benn junni ak lu ne ci am daal ci biir dëkk bi muy lu ama am solo yomatuñ ci loolu dañoo amuk ubbeeku di jëflanteeg ay projet projet yoo xam ne yii nguur gee ko moom yii du mbiru nguur gi waaye képp ku leen bëgg a dimbale ca ca dal seen xel ñu mën a ànd ak yow moo tax ñu gis ci biir dëkk bi am na projet bu ñuy wax PACEF mooy boobu nguur gi la am na fi ci biir dëkk bi am na projet bu ñuy wax PAMOD mooy yi yeesal daara yi ak ñi leen di jàppale yooyu tamit am na ci biir dëkk bi ci ay daara ay alxuraan yoo xam ne ñu ngi jëflanteeg moom fii ci biir dëkk bi waajuri ndog yi tamit dañuy jàpp bu baax ci liggéey bi rawatina jamono yoo xamante ni. daara ji dafa am xew-xew kon loolu ci gàttal mooy wàllu daara yi alxuraan yi alxuraan nag daara yi alxuraan nag bu fi nekkee ba léegi di dund ñu di ko tudd nañ delloo njukkal mag ñi kilifa yi jullit ci Sénégal yépp ndax romb na ay rombuwaay yoo xamante ni mënoon na faa jaare far ba faaw waaye nag yàlla comme que nee na moom moo wàcce alxuraan te moo koy sàmm xam naa coobare yàlla moo ci dox waaye bundu xatal lu xel du daj ci bundu xatal daaray Sénégal daj nañ ko ci jamono bi nga xam ne tubaab bi mu ngi ci biir réew mi ci loolu rek duñ dugg ci détails yi ndax waxtu wi mayewu ko waaye tubaab boobu ñu tuddee Faidherbe liñ ci def ci ay jéye ci ay nasaxal ci ay lakk ay daara tas rey dàq kenn xamul lu mu toll am na ñuy wax ni lu tolloog ñeent fukki junniy daara lakk na ko yàq ko dàq tas ñeent fukki junni quarante mille yooyu nag bi ci gën a fës nga xam ne moom ba léegi Sénégal ba léegi Sénégal taarixu Sénégal du ko fàtte mukk mooy daaree Pire nga xam ne dafa mujjoon nekk barabu jàngukaay bu rëy rëy rëy rëy ci Afrique sowu jant nga xam ne Mali boo génnee Tombouctou boo ñëwee Sénégal Pire nga fiy dégg université de Pire Kader bi lii moo dem lakk ko 1869 lakk ko lakk la fa nekkoon ci ay kàggoo ci tey rek tas daara ji li mu fi def ci ay yàqute kenn xamul nu mu toll tubaab bi kon bu ñu tuddee daara fu nekk nii ba léegi ñu koy tal daara di am nañ delloo njukkal mag ñi te te sant leen bu baax a baax daara yi nag nu mu toll fii ci Sénégal fu nekk nii kenn mënu la ko wax ndax saytu bi dafa nekk ci ay loxo ay jëmm nii rek kenn ku nekk sa daara kenn ku nekk na ngay yore sa daara ci 2017 kuréel gi nga xam ne moo lënkale daara alxuraan yi ci biir Touba doon na jéem a def ay gëstu ci xam lim bi nu mu toll ba jotoon cee dajale lu tolloo junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent muy 1424 daara ci biir Touba ci 2017 la woon boobaat léegi ëpp na juróomi at ci ginnaaw kon fu nekk nii ci 2022 ak soppeeku mën naa am ci yii ci yokkute ak wàññit ndax daara yu bees mën nañoo yokku waaye ay daara it mën nañoo tëj wala ñu tuxu dem ci yeneen dëkk moo tax lim bi fu nekk nii dañ koy wéttalikoo rek waaye mënuñoo wax ne mooy lim bu wér bi nekk ci ay daara fii ci biir Touba. bu daara alquran yi jàllee beneen xeetu njàngeen bi saa mooy majalis mooy tërëlin njàngu tërëlin nii moom it mu fi yàgg la Touba dafa dugg rek indaale ko muy barab boo xam ne muy njàng xeetu njàngale moo xam ne tamit yàgg na ci Sénégal lool. moom daara alxuraan daanaka ñoo ànd ñoo ak lislaam ñoo duggandoo ci biir ci biir ci biir Sénégal ndax lislaam ci biir Sénégal dugg duggeewu fi ci xare waaye ci jëflante bu bu rafet la la fi duggee lislaam nag mun dafa mënta tàqale ko ak daara moo tax daara ji jiitu ci lislaam ji njëkk ci lislaam makkatal mukarrama la woon mooy ba yónnante bi daal tëjoo ay benn benn saxaaba ca biir néeg ba ñuy dimbalante ci seen wàllu diine foofa la taal bu njëkk ba tàkke ba fii ñu toll ba fu diina mën a egg ci àddina te foofu la bàyyi ko majlis boobu nag mboolem kilifay diine yi yu Sénégal yi yépp ci xeetu njàng mi lañ génne booba école di toog ci bang ak def ab tableau yooyu amutoon waaye ci xeetu majlis bi tëral yooyu la woon kilifa diine buñ fi tudd bu nekk di ko jox cër ci biir Sénégal ci foofu la génne mu doon njàng moo xamante ni nag moom majlis bi su réewut ak lool daara su réewut ak loolu daara daal ndax xam-xamu diine ak kàllaamay arab moo lot ci lañ koy jàngale xëy na jàngaleen wa rek moo xaw a wuute ak yu mel noonu ci bu dee ci majlis bi jàng alxuraan léegi amatu fi tëral alxuraan bind bi nii amatu fi ndax loolu feneen lañ koy jàngee kon dañoo xaw a nuroo waaye daal tàggat nit yi diine moo ko tax a jóg mooy majlis bi ci cosaan ay français ak anglais yooyu yëpp daaw fi am lu mel noonu yooyu nag du Sénégal rek waaye yeneen réew yu mag yi yëpp di réew yu julli yu mag yëpp am nañ xeetu majalis yi Mauritanie ràññeeku na ci lool bu jàllee ñaari xeet jàngeen yooyu am na beneen boo xamante ni mooy li ñu tuddee école école yii xew léegi école yii xew léegi am na ci ay façon yu am ci biir dëkk bi bi ci njëkk ci gën koy yàgg mooy li ñu tuddee école arabe école arabe mooy école Daaru Xuddoos école sëñ Murtala yeeg ay yu mel noonu école arabe la ko waa dëkk bi di tudde waa réew mi sax ñoo koy tudde mooy ne lañ koy jàng lépp daanaka xam-xamu diine lay doon te ci kàllaamay arab lañ koy jaare bi fi gën a yàgg ci Touba mooy école sëñ Cheikh Gaynde Fatma yi ci année cinquante yi mille neuf cent cinquante sept cinquante six côté yooyu su ko defee biñ demee ba mille neuf cent soixante dix soixante quatorze quinze yooyu sëñ Murtada Mbàkke moom Cheikhul Xadim radiallahu anhu ubbi école al azhari ñaar yooyu ñoo fi gën a yàgg ci li ñu tudde école arabe ginnaaw bi nag yu baree bari judd nañ fi nekk fii ci biir dëkk bi tasaaroo xeetu école arabe bii moom it ni ma ko waxee ci xam-xamu diine ak xam-xamu kàllaamay arab la ëpp ci li muy sukkandikoo naam danañ jàngale wàllu science ak yenn xam-xam yi waaye ci arab lañ koy jàngalee lu ci ëpp danañ jàngale ba nit français ak anglais waaye waxtu yañ koy jagleel dafa bariwul dafa néew lool waaye nañ ko fay jàng nañuy jàngale it dafay wuuteeg na waa daara ak waa majalis di jàngalee ñoom dañuy teg ay banc def tableau ci kanam am jàngalekat bu yor ay craie daa amu fa xalima amu fa beqeeg boole yooyu yooyu amu fa su ko defee di nañuy jàngalee tamit ak nañuy xaymaa nañuy natte ñay jàng yooyu yëpp dafay wuute ak la am ca majalis beeg daara yi yooyu beneen beneen beneen xeetu daara la moom it lim bi fu nekk nii mën xamuñ nu mu toll ndax ci ay loxo rek la nekk amul benn kuréel buy saytu daara yi fu nekk nii niñ ko war a saytoo ci ay nit loxoy nit rek moo tax mënuñ laa wax fu nekk nii lim bi ñaata la waaye nag bari nañ fi lool beneen xeetu école bu fi am mooy li ñu tuddee al madrasa al français al classique mooy école tubaab école tubaab bi fi tubaab bi indi mu ngi ci biir dëkk bi école tubaab boobu moom amu fi woon ci cosaan laataa tubaab bi di ñëw Sénégal amu fi woon daaray alquran moo fi amoon ak ak majalis ak ay yeneen xeet yooyu moo fi amoon waaye école tubaab bii amu fi woon tubaab bi nag bi ñu ñëwee gis waa Sénégal jullite Sénégal yi ni ñu jàppee daara ak ni ñu jàppee seen diine ni ñu soree ci ñoom mu xam ne lii yar ab yar rek maanaam jaasi doole mënu koo dindi mu ne kon naa samp leneen lu ko nuru ci pegg bi te gën koo mel na lu ko gën a taaru samp ko mooy naa ko sampal bu naa ko wuutal daal concurrent ku koy jonganteel moom daal di samp école ci pegg bi ndax li mu bëggoon jëlum koom moom mën nga koo jël ci doole waaye soppi xel moom mënoo koo def ci doole faawu xel moom moroomum xelam moo koy soppi loolu tax nag tubaab bi daal di gis ne kon moom it faawu mu taxawal ci ab école daal di fay taxawal école école bi ñu fi njëkk taxawal ci Sénégal ci ndar ndar la ko taxawale woon ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar muy 1817 école tubaab bi fi njëkk a taxaw ci Sénégal foofu la ko taxawale ca tàmbali bi tamit ay waa kër làbbe yi ñoo yoroon école boobu ngir solal ko mbubbum diine waaye loola dafa jur ci jullit ci Sénégal foñ école bi far benn yoon ñu gën koo nag far foñ dañuy ndax dañoo gis ne kon soppi diine ko tax a jóg tax jubluwuñ école tubaab boobu tubaab bi tamit nag ngir école am dund moo tax mu jël ay matuwaay matuwaay yu bare bare yoo xam ne waxtu yu mayewut ñu ñu ñu taxaw ci waaye bokk na ci mooy yar bi mu jëloon mooy lakk ay daara faagaagal teg ay tëralin ak yeneen yu métti yoo xamante ni waxtu wi du ko maye ngir ngir daaraam moom dund école boobu nag am na fii ci ci ci ci ginnaaw bi nga xamante ne ca njëlbéen ga ay nit làbbe ñoo ko yoroon ci la ko fédère bi daal di sottee nag ci atum 1857 def ko mu nekk école école laïque école laïque école boo xam ne léegi dañ cay dañ dañ cay dindee lépp luy diine école bi ca jamono yooyu ba ay jamono yu néew ci ginnaaw njàngum diine amutoon ci biir Sénégal école Sénégal yi arab lañ ca dugaloon te ci wax ko ak ci anam boo xamante ne moom it duñ dugg ci yenn détails yi fii waaye njàngum diine daal amu fa woon moo tax ña fa daa génne ci ay boroomi xam-xam ci ay kaadar ñëpp dañuy aay lool ci doxeenu àdduna ci xam-xamu àdduna waaye duñ fer ji ci seen diine nga daa gis ay kilifa yoo xam ne dañuy jël jàngalekat alxuraan di ko woo seen kër di ko fay ñu leen jàngal nu ñuy fere ji ak nu ñu mën a jàng alxuraan te kaadar la ci ñi ci yor réew mi lay doon loolu lu ko waral mooy école boobu dafa mujj dindi seppi lépp luy diine ci ci am njàngaleem ba ña fa génne woon ñëpp xamul dara ci seen wàllu diine ci ay doomi jullit école boobu mu ngi biir Touba école boobu nag am nag soppeeku nag léegi ginnaaw bi ginnaaw bi dugal nañ ci njàngaleem diine dugal nañ ko ci waaye yàggut lool njàngaleem diine moomu tamit liñ ko jagleel ci ay waxtu bariwut ñeenti waxtu lañ ko jagleel njàngaleem diine mi ak arab mi buñ ko boolee ci école boobu ñeenti waxtu la ñaari waxtu yi arab ak yenn xam-xamu yu jëm ci kàllaamay arab la ñaari waxtu yi ci des xam-xamu diine yi muy alquran ak fiq ak tawxid ak xadis ak siira yooyu lañ boole ci ñeenti wax nga gis ni kon bariwul te it ci ci suuf la yem maanaam ba certificat la yem ba certificat nit ki boo xasee ba am certificat dem di wuti BFEM di wuti bac diggante boobu bépp nga xam ne ci lay gën a aajowoo taxawu ci wàllu diine diine amu fi ci école Sénégal bii nga xam ne tubaab bi moo ko fi sampoon ba fii ñu toog di wax mooy école classique bi i'dadiyya bi mooy enseignement moyen secondaire bi amul diine arabe rek la am kon diine ji mi ngi yem ci suuf te ñaari waxtu lañ ko jagleel arabe bi mi ngi yem ci suuf arabe moom dem na ba bac waaye bu dee ci suuf ñaari waxtu moom it lañ ko fekkee loolu mooy école classique bi nga xam ne tubaab bi mokk sampoon ci dundam fu mu ne fii la fi toll mi ngi biir tubaab yi beneen bi ci des mooy ñu ngi tuddee école franco arabe école franco arabe daanaka mooy caat mi mën nañ ko tuddee caat mi moo gën a néew ay at ci école yi yi nga xam ne nguur gi samp na ko fi te ak yi nekk Touba mooy caat mi moom ay fanweeri atam yooyu daanaka wala ñaar fukki at ak nangam yu tegal sax ndax 2002 la la ko la ko nguur ak Sénégal taxawal te taxaw na ab diir door a am biir Touba kon moom digg bi mu amee Touba yi léegi yàggut lool lool waaye nag mu ràññee ko moom it xam nga lu mujj ñëw lu nekk day xool la moroomam manqué mu jëm koo fatt moo tax fii dañoo fab waxtu yi xaaj ko ci digg bi genn wàll bi ñu jagleel ko kàllaamay arab ak xam-xam yi ci aju rawatina wàllu diine geneen wàll bi ci des ñu jagleel ko xam-xam yi kàllaamay tubaab ak yeneen xam-xam yi aju ci wàllu science ak ak yeneen yu ñu deme muy cinquante cinquante dañ koo xaaj loolu la franco arab bindoo su ko defee nag moom it mu doon école boo xamante ni am na gox yoo xam ne ci Sénégal moom lañ taamu moom lañ taamu la tax ñu indi ko fi sax xëy na waxtu du ko maye ñu ñu taxaw ci waaye am na daal ñoo xam ne loolu moom lañ taamu muy franco arabe mu am nag beneen xeetu école boo xam ne bëriwut lool Sénégal waaye mënoo ko dugal fenn ci mooy ay nit yoo xam ne ñoom dañoo taxaw nii rek dajale ay mbir tudde ko programme daal ne dañuy waajal ay nit ngir ñu mën a def concours bac bi examen bac bi wala ngir ñu mën a def examen brevet bi waaye seen programme boo xoolee ay mandargaam mënoo ko dugal ci benn ci yi ma tudd fii ñooñu dañ leen dañ koo jagleel ñi nga xam ne dañoo nekkoon jàngale def ci njàngam daara meeg majalis bi ba seen i at xaw a sori ñu bëgg leen a gàttandu def xeetu programme boo xamante ne ay nit a ko tegal nii rek xale bi bu ñëwee nit ki bu ñëwee dafay jàng juróomi at juróom-benni at mën a dem bokki ca ñay defi bag ci baggu état bi su ko defee bu ko amee mën a continuer am njàngam loolu am na ci biir dëkk bi waaye boo xoolee mandarga yi mënoo ko dugal ci benn ci yi nguur gi amut école boobu biir Touba tamit bëriwu fi lool waaye am na fi ay benn benn yoo xam ne loolu la ñàkkul sax xëy na ñu toog fii am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci xeetu école boobu fii kon gis nga xeetu njàng mi fii ci biir Touba ni ñu bindoo xar kanam bi mu am léegi nag yan façon moo fi am yan yan yan xarkanam yan mandarga moo moo ràññale njàngum Touba boo ko dendaleeg yeneen dëkk yi ci des ci biir Sénégal bi ci njëkk ci li may tudd mooy ne mboolem barabu jàngukaay yi nekk biir Touba yi yépp xëy na nga génne ci Daarul Maarif gii bii nekk ci biir jumaa ju mag ji boo ko ci génnee daanaka biir Touba bi njàng mi ci nekk yépp ci fi ma fi ma toll ci samay gës ay nit a ko moom waaye waaye yoonu murid moomu ko ay nit ñoo ko taxawalal seen bopp moo xam école Sëñ Cheikh Gaïndé Fatma lañ ko tudde wala école Sëñ Mourtala lañ ko tudde wala école Masamba Nangam lañ ko tudde wala Mademba Nangam waaye ay nit ñoo ko taxawalal seen bopp waaye amu ci benn boo xamante ni yoonu murid moo ko taxawalal ñu ne lii officiellement mooy école yoonu murid amu fi loolu mandarga mu njëkk la kon njàng mi ci ci loxo yi tasaaroo la nekk ñaareel ba mooy ni barabu jàngukaay yi nekk ci dëkk bi yu néew nga ciy génne mu doon yoo xamante ni dañ koo waajaloon fa mu nekk dañ koo waajaloon ngir école yu ci bari daanaka xaw na maa wax xaw yu ci baree baree baree bari fa ñu nekk da leen a dab liggéeyuñ ko ngir école dañ koo liggéeyoon ngir dëkkuwaay wala ñu liggéey ko ngir yaxantu wala ngir leneen ñu soppi ko def ko barabu jàngukaay ca barabu jàngukaay dafa war a am melokaanu boppam ñu war koo natt muy sàmmunte kaaraange yi ña fa nekk di fa jànge ak ña fay jàngalee ak seen wàllu wér-gi yaram yu bare bari yooyu yëpp bàyyiwuñ ko ci xel ay kër yuñ soppi ay école moo ci bari lool boo gisee ñuy wax école mbedd école mbedd léegi sax wàññeeku na waaye école mbedd école koñ bi la ñuy wax école mbedd loolu moo firi na lu ne mooy ne waajaluñ ko woon fa mu nekk waajalu école tax ko woon a jóg lu néew lañ waajal fañ nekk école tax taxoon koo jóg waaye yu ci bari loolu amul foon kon école mbedd bi ñuy wax rek li muy tekki bari na lool ñaareelu mandar ñetteelu mandarga mooy ni kenn ku nekk yoon wañ ca sóobu kenn ku nekk la ngay jàngale ak na nga koy jàngalee ñu ci bari ci ñoom sarti sarti yoreenu sarti jàngi liin ak sarti yoreenu école dajewu fa ñu ci bari ci ñoom du mën a yëpp nag waaye ñu ci bari ci ñoom li ñuy wax maayir ilmiya wa qanuniya amu fa nit daal mooy amu xiram wala mu wala mu mooy taxawal yaa école am yore ko na ko xelam mayee rek waaye tàggatuñ ko ci loolu tàggatuñ ko ci ni ñuy jàngalee tàggatuñ ko ci ni ñuy yoreb école ñu ci bari ci ñoom te école moo hôpital ak ay marché yenn yu nekk dañoo am seen melokaanu bopp ak lu ñu leen war a bàyyee xel école yooyu yëpp nag ñu ci bari ci ñoom jëflante wu ñëw ñu yor wàllu njàngale mi ci biir Sénégal jëflante wu ñëw tamit kilifteef yoonu mu rëdd maanaam ñoom ña ngi ci seen waar daal nekk ci seen bopp ñu ci bari ci ñoom ay benn benn ñooy jëflanteeg waa IEF ñu yor wàllu njàng mi ci biir dëkk bi waaye ñu ci bari ci ñoom yoonu murid bi xamuñ ci liñ nekk ba noppi boo demoon ñu yor wàllu njàng mi fii ci gox bi duñ xam école yi ñu toll duñ xam ñaataa fa nekk góor ña ñaata leen jigéen ñi ñaata leen nan lañ koy dundal liñ leen di jàngal naka lañ leen di natt yooyu yëpp xamuñ ci dara kon amuñ amuñu jokkoog ñu yor njàng mi ci biir réew mi amuñu jokkoog ñu yor kilifteefu biir dëkk bi loolu ci mandarga yi la loolu nag ñàkk jokkoo googu ñàkk kilifteef googu ci wàllu yoreenu école yi dafay jur ay jafe-jafe jafe-jafe yi bokk na ci mooy boo bëggoon a xam école yi nu ñu toll ci biir biir dëkk bi doo ko xam boo bëggoon a xam yan xeetu école yan xeetu programme kaaraange bi nu mu fa demee nangam ba ku fa génne nooy looy man loo dul man yooyu yëpp amul duñ ko xam mooy li ñuy tudde daal ay ihsaayaat ay statistiques yu fiable yu wér amuñ ko ci xale ya nuñ fa nekkee luñ leen di jàngal ci lan lañ leen di yar yooyu yëpp duñ ko xam ndax dañ koy saytu yëpp saytu ba ba te war beneen problème bi muy jur mooy ne école yooyu kenn du leen mën a dimbale kenn du leen mën a jàppale ndax bala ngaa jàppale nit da ngay xam ci li mu nekk lan la nguur bi ci mën a dugal loxoom ndax xamu leen xamu leen yóone luñ seen liggéey te it jëflante wu ñëw waa nguur kon nguur du leen mën a jàppale te balaa leen ak keneen mën a jàppale danañ xam faaw nga xam ci lim nekk lu mu doon kon dañuy daal di néew ay ndimbal néew ñu leen di jàppale ndax kenn xamut ci seen mbir dara ñetteelu jafe-jafe bi yi nga xam ne yooyu da koy jur mooy ni ñañ fay tàggat mën nañoo xëy xëy ci biir dëkk bi gis xeetu nit ñoo xam ne boo xam xeetu nit lan la ngay laaj suñ bàyyi ko fekk ca ci école yooyu lañ bàyyi ko ci wàllu dundin ci wàllu colin ci wàllu waxin ci wàllu pas-pas ci loolu yaakaar naa weer yii ñu weesu gis nañ ay yëngu-yëngu yu amoon ci biir réew mi mandarga yi ñàkk déggoo ci wàllu doxinu diina moo ko waral école yii ñuy bay bayal kenn yoru leen kenn yoru leen ku neex ubbi ku neex yore nu la neexe jàngale nu la neexe kenn contrôlé wu leen yooyu lay jur ñaar ñu bokk ndey ak baay di yewwoo ci benn kër bokkuñ ñu ñuy jullee bokkuñ ñu gëm bokkuñ ñu ñuy solo bokkuñ ñu ñuy waxtaan bokkuñ ñu ñuy waxe te ñoo bokk benn dëkk waaye dañoo wuute barab barab bu ñuy jànge rek la te école yooyu kenn contrôlé wu leen loolu nag mooy jur li ñuy wax waa sufiyanke yeeg ñeneen ñi waa sufiyanke yeeg ay yeneen yoo xamante ne mënoon naa ñàkk ci dëkk bi ci buñ ko saytu woon anam bu baax ñay jàng fiq maliki ña ngay jàng fiq maliki ñay jàng yeneen fiq ña ngay jàng yeneen fiq ñay jàng tasawuf ña ngi koy jàng ña ngay jàng leneen ña ngi koy jàng ginnaaw bi léegi da ngay gis ni Tuuba ay nit ñoo xamante ne buñ bokk xar kanam ca ne pour ca ca boota ca ca ca bokk fu ñu yeewoo bokk ndey ak baay sax amaana léeg-léeg léegi nag yooyu waa dëkk bi ñoo war a xam seen responsabilité foofu am na dëkk yoo xamante ni loolu moo leen taal ay dëkk ay réew yoo xamante ni loolu moo leen taal ñàkk contrôler seenum njàng ba mujj mu jural leen ay jafe-jafe ay xeex ay xare ay guerre civile di fa am ci seen biir xam nga ni ku mel ne ki Nelson Mandela buy wax ni yàqum réew yàqum réew jërub jël ngànnaay yàqal école ba rek ferankulaayu xool leen kon ñàkk a contrôler ay- ay barabu jàngukaay yi mooy yaa ngi bàyyi dëkk bi mu dox ci yoon woo xamante ni fu muy yugg laa qadrallah mën naa bañ a doon liggéey yeneen mandarga yi am ci biir dëkk kon yooyu ay ay mandarga yoo xamante ne ak i conséquences yu mën a juddoo ci ñàkk a taxawu am njàng bàyyi ko ci loxo yu ne rek léegi nag fan la jëm fan la fan la lan lañ ci mën a séntu ci ëllëg muy tomb bu mujj bi dafay am wàll boo xam ne boo ko ko xoolee da ngay tiit am wàll boo xam ne boo ko ko xoolee sa xel mën naa dal boo xoolee ni bis bu set fu nekk nii ay téeméeri téeméeri xale ñooy njëkkalante oto yeeg sareet yi di génn dëkk bi mel ni màggalu Tuubaa moo xew ci beneen dëkk bu ñuy wax beneen ngir jàngi di yendu àll bu ngoonee ñu ñëwaat fanaan ci waat ci dëkk bi xamoo lu ñu yendoo foofa loolu boo ko xoolee da ngay tiit ndax yarit nag buñ koy wax takkoo moo tax ay école am ci biir dëkk bi ñu jàng bi ñibbisi ci seen kër dafa gënoon a wóor ñuy xëy di njëkkalante oto yeeg sareet yi di génn di génn bitti dëkk bi yendu fa doo xam lu ñuy jàngee lu ñu leen yoreeg lu ñu leen yore foofa bu ngoonee ñu fanaan si waat loolu xale bu ko def ay at melokaan woo ko gis bu mu la bett bu dee ci àll wàll googu boo ko xoolee sa yaram day daw da ngay tiit boo xoolee ni dëkk bi ci ay jàngat yoo xamante ni waa inspection bu Mbàkke bi ñoo ko defoon 2012 boobaag léegi ñaar fukki at yi mat na ñu ne woon ci biir dëkk bi am na trois cent quarante cinq mille maanaam ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ay junniy xale yoo xam ne dañoo toll ci jàng te amuñ fuñ jànge ci biir dëkk bi boobaag léegi fukki at la de kon léegi lim bi mën naa soppeeku amuñ fuñ jànge ñu ne buñ leen waroon a jàngal ci jàngat boobu ñu defoon danañ aajowoo ñetti téeméeri école ak ñeent fukk ak juróom ci biir dëkk bi école bu nekk dana yor junniy xale te loolu lépp dara amu ci kon fu nekk nii lim bii ca mbambalu ci biir dëkk bi ci ay xale yoo xam ne jànguñ wala fa ñuy jànge kenn contrôlé ñu ko kenn xamul duñ toll ci biir dëkk bi ci wàllu boobu boo ko xoolee sa yaram day daw te da ngay tiit ci ëllëgu dëkk bi boo xoolee ci ni dëkk bi wàllu njàng mi tëraluñ ko ci benn programme li ñuy wax siyaasa tarbawiya benn programme njàng bu leer buñ tëral kilifteef bu mag gi saytu ko ak ñi ko ci jàppale amu fi loolu boo ko xoolee da ngay tiit ci wàllu njàng mi njàng mu nekk ci loxo rek kenn ku ne na nga ko yëge ak na nga ko bëggee rek ñuy demee boo xoolee ci wàllu boobu da ngay tiit waaye nag am na wàllu yoo xam ne boo ko xoolee sa xel da mën naa dal nga nga nga nga mën a am yaakaar bi ci njëkk mu ne da ngay gis ne ndaw ñi léegi jubbu nañ wuti nañ xam-xam bëgg-bëgg bi mu ngi fi loolu dal na xel lool bëgg-bëgg boobu sax moo tax suba gu jot nga gis leen ñu génn dëkk bi ñoom ñëpp mel na kuy màggal loolu dal na xel ndax ak ndaw bu bu bu xelam jëmee ci njàng rek boo ko gungee tuuti rek mu baax bëgg-bëgg bi kon mu ngi fi loolu xëy na mën naa dal xel beneen bi ci def ñun daara yi daara nga xam ne moom la coow gën a topp ci dëkk bi mel na ni ñu ko yor seen yëg-yëg ci ni daara dafa war a soppi aw doxin ak toogeen dafa mel ne gën naa yokk yëg-yëg boobu ba tax na ñu bari ci ñoom léegi ñu ngi góorgóorlu ci li gën a defaraat dund bi ci biir daara yi gën a defaraat njàng mi ci biir daara yi daara yi gën a defaraat ni ñu taxawoo waa daara ba tax da ngay gis ñuy jëflante ay kuréel ci ngir ñuy tàggat jàngalekatu alxuraan yi ak waa daara yi kuréel yooyu bokk na ci Tuubaa ci kanam ñu ngi ciy def liggéey bu am solo ci wàllu tàggat ak ci wàllu tabax ay mbaaru jàngukaay ci daara yi ak di ko yóbbu ndox ak yeneen ak yeneen ci anam boobu boo ko xoolee gis ni taalibe yi ñu ngi dugal ci alal ji ñuy dugal ci ci kuréel boobu ñu ngi jàppaale ci wàllu njàng mi ci anam boobu dañ ci am xel mu dal waaye am na beneen anam boo ko ci xoolee da nga da nga gën a dund yaakaar sa xel dana gën a dal mooy am na ay ay coona ak i jéego yuñ jot sàkki jéeg yi fii ci biir dëkk bi bokk na ci mooy jaamiatu Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne sëñ Mamor taxawal na ko mu ngi def liggéeyam te ci ay bis yi weesu rek nit njëkk a amee seen licence seen lijaasa génn nañ ci ay bis yi weesu loolu boo ko xoolee sa xel day gën a dal te mel na ne teg naw xeer ngir gën koo yaatal te loolu ci biir dëkk bi ñu nekk la loolu dafay dal xel waaye boo xoolee projet yu mag yu jëm ci wàllu njàng mi yi am ci biir dëkk bi mën naa dundal yaakaar ci nit muy lycée bu mag bi nga xamante ni waa Daaru Xuddoos ñu ngi koy tabax bu sottee ci jàmm ak salaam mën naa lijjante lu bu bari ci ñoo xamante ni continuer seenum njàng jafe woon na leen ba bag ci biir dëkk bi ba tax ñu daa ko jëggaane feneen ñooñu mën nañoo des ci biir dëkk bi loolu dana jur yaakaar waaye nag yaakaar ji gën a rëy mooy projet bu mag bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom it taxawal na ko boo ko xoolee mën naa jur yaakaar muy projet boo xamante ni moom it bu rëy rëy la léegi yaakaar naa ni ku ko xamul tamit dégg moom def la ko gën gaa néew projet boo xam ne la koy taxawal ci ay tabax ak équipement fanweeri milliards ak juróom-ñaar gën gaa néew ca loolu ñu tudd la koy yor moo ko ëpp bis bu sotti woon lu rëyee noonu nga xam ne du rek benn université ni ñu koy waxee ndax ñi xamut ñooy wax université waaye moo gën a yaatu université njàng la lu wuute xam-xam yu wuute ci kàllaama yu wuute waaye nag ñu lënkale ko njàngaleem Sëriñ Tuuba lënkale ko fiqhul maaliki yi fiq bi nga xam ne moom la ñu Sëriñ Tuuba dénkoon lënkale ko pas-pasu jamaatu ahli sunna wal wal jamaatu ahli sunna non ahli sunna wal jamaa lënkale ko achair aqida al achariya nga xam ne bu boobaa bu sottee léegi wuute yi ñu am ci colin wuute yi ñu am ci melokaanu taw bitti gi nii wuute yi ñu am ci waxin wuute yi ñu am ci julleen jaamu yéen yàlla yooyu yëpp du ma ne dana dañ waaye dana wàññeeku bu baax a baax su ko defee doomu Sénégal doomu waa Touba yi doomu Sénégal yi dañu gën a mën a méngoo mooy xar kanamu génn bi dana gën a nural li ñu tudde profil de sorte dana gën a méngoo dëkk bi nga xam ne dëkku diine la projet boobu nag yaakaar boobu ak rëyaay boobu ak soppe yi ñu ciy séntu ngir mu ngir mu ànd ci sama xalaat bu gàtt faaw dana am mbir yuñ ci war a bàyyi xel ci sama xalaat bu gàtt am na yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel bi ci njëkk mooy ni waa Sénégal gépp dañ ko war a def muy seen moomeel projet si Mountakha bi waa Sénégal gépp dañ ko war a def muy seen moomeel daa tolloon ni barabu jàngukaay buñ koy def faaw mu am barab buñ ko def rek waaye loolu firiwut ni waa dëkk ba rek ñoo cay jàng waa réew mépp ñoo cay jàng ba ci waa bitim réew sax mën nañu jóge ñëw di fi jàng ci yeneen xam-xam yi ndax dégg naa ci yoo aju ci wàllu métier ak ci yoo aju ci wàllu médecine yoo xamante ni bëriwut ci Afrique sowu jant te ñun dénk liggéey boobu ñoo ko ci wax ni naa nañ bu noppee mën naa am nga gis ñu jóge ci réewi dëkkandoo yi ñëw di ko jàng si fee ndax yaakaar naa ni benn la fi am yaakaar naa xaw ma Dakar ak xaw ma fan xaw ma Bamako lañ wax xaw ma ak yu mel noonu kon nga gis ni kon xar kanamu dëkk bi dana soppeeku lool lool bu boobaa kon Sénégal yépp ñoo ko war a def seen moomeel rawatina jullit Sénégal yi ak waa ak ak taalibe Sëñ Tuubaa yi faaw kenn ku nekk def ko muy sa moomeel te bañ a jàpp ni yëpp diw sàngam la ak yëpp waa kër diw sàngam loolu moom charte bu ci mënta ñàkk la bu koy kenn ku ne defee sa moomeel kenn ku ne la cay sa kàttan nga def ko ci yaakaar naa ni mën naa indi njariñ lu bare bare bare bare ñaareel ci sama xalaat bu gàtt mooy faaw nag ñu yor ko ñu téye ko téye wi nu xam-xam te bañ koo téye téye ñu daanukat école barabu xam-xam la barabu jàngukaay la du barabu seyaarukaay faaw ñu téye ko téye nu xam-xam bu dëppook aw yoon fi àdduna bi toll su dul loolu waa àdduna dañuy dem bàyyi ñu fi ca diplôme boo fi amee waa àdduna duñ ko duñ ko nangu te ku nekk ci àdduna di yor lu waa àdduna nanguwut ñàkkoon ngaa yor sax yi gën kon il faut que ñu teg ko ci xam-xam téye ko téye ñun ñu dëppoog yoon te bañ ca dugal ay maslaa yi ak yenn yaa ma neexee yi kan xamul loolu moom mënu cee ñàkk jëflante cee nag ñu yor wàllu njàng mooy kilifteefu réew mi faaw ñu jëflante cee ñoom ndax naal bi dafa rëy te ñoo yor wàllu njàng mbir mu nekk mbir mu nekk dañ koy dénk ña ko xam buñ ko defut day tege ci yeneen loxo yoo xamante ni leneen a tax ñu dénk leen ko su ko defee mbir mu sooxe li ca demoon ci alal li ca demoon ci yéene li ca demoon ci kii dafay mujj nax saay kon loolu moom mun da ñàkk ca mel na ni sax kilifa yi ñu ngi ci fekk ay jéego fu nekk ni am na jéego yu bari yu ci am ñetteelu mbir mi mooy ni liñ ciy jàngale liñ ciy jàngale faaw ñu bàyyi ci xel melokaanu dëkk bi dëkk bi dëkk diine la lépp luñ fiy naal lépp luñ fiy def faaw mu am tuubu diine mun ta ñàkk ku bëgg leneen lu dul diine nga jàngi ko feneen fii dëkku diine la lépp luñ fi def dañ koy tuub tuubu diine ñi diine ñor ñu jàng jàng si ko loolu tëriwut ne xam-xamu diine rek lañ fi jàngale xam-xam yépp lañ fi jàngale waaye comme que sëriñ bi dafa dénkoon waa ñi topp ci ginnaawam ni xam-xam bu ngeen di sàkk lu ngeen di jëfe na ngeen ci jiital yàlla kon bépp naal buñ ko def yàlla lañ koy jiital kon liñ fiy jàngale nañ ci bàyyi xel melokaanu dëkk bi spécificité dëkk bi xusuusiyaam li taxoon sëriñ bi sam sant ko ñu bàyyiwaale ci xel tamit aajoy waa dëkk bi ngir buñ ba ëllëgee buñ ci génnee ñu mën a amal njariñ seen as amal ko seen dëkk amal ko seen mboow amal ko àdduna bi ñeenteel bi ci moom lay mujjee mooy ni ku wax barabu jàngukaay bu nekk koppar mënu caa ñàkk faaw ñu wutal ko li ñuy tudde source de financement maanaam lu koy financé lu sax lu dul aju ci jëmm ca def ko mu wuute lool nag bañ a doon rek benn wutuwaay def ko ay wutuwaay yu bari bu jaree ci société yu mag yi ñu jënd ci ay action bénéfice bu mu am ñu am ci suñu wàll muy dem ci wàllu njàng mi bu jaree ñuy tabax ay centres commerciaux ay bâtiment di ko loué ci biir dëkk bi ak feneen fu ci biir dëkk bi lu ci juddoo ñu def ko ci biir njàng bu jaree ñu wut ay station d'essence parce que suñu réew bu ñu ci yàlla bàyyee jàmm léegi tey pétrole bi ñëw ak gaz bi bu jaree ñu dugal foofu xaalis ñuy jur bénéfice bénéfice bi di dellu si kii ñu def ko bu jaree di def li ñuy wax waqf di di di tabax di def ci yoonu yàlla nga xam ne kenn duutu ko doon kenn duutu ko jaay kenn duutu ko leble kenn duutu ko maye lu fa juddoo ñu def ko ci njàng mi bu jaree ñu def yooyu yëpp ak yeneen yu dul yooyu waaye financement bi koppar yi duñ ko tëral ci ay addiya ak jëmm loolu sama xalaat bu gàtt la boo xam ne buñ bëggee mu amul mujj faaw ñu def ko ci mooy li ñu wax tawfir mawarid maliya zaatiya mutanawia wa mustadaam lu dul loolu dañuy sànq suñ xaalis rek ndax la koy tabax indi ci ay jumtukaay moo gën a néew la ko war a yor ndax dafa war a dund ba ba ba ci soob yàlla kon nag ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxe woon projet bii la koy yor moo ëpp li koy tabax loolu la ko kenn ku ne def ci boppam ñu teel a dox jëm foofu bu ci maslaa duggee ak yi maslaa yi ñu xam ci Sénégal moo ni ci lii moom say ba ñu lem ko sànni ci poubelle yàlla tere loolu moom foofu lay mujj kon yaakaar naa ne li ñu cërale ci waxtu jeex na dañuy wax rek ni kon njàng mi ci Touba njàng mi ci Touba ni ko sëriñ bi bëggee woon Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ba tax sëñ sëriñ Mbacke bi sa doon wax ni ñetti mébét la fi bàyyi woon yoo xam ne ci dundam jututoon a ànd ca mu bokkoon ca muy barabu jàngukaay bu rëy fii ci Touba loolu ba léegi des na ay jéego yu ñu war a seq ay jéego yu am solo yu ñu war a seq ngir ñu sottal ko te loolu nag taalibe bi yépp ñoo ci war a bokk kenn ku nekk kenn ku nekk kentu laay kàttanam ki am alal def ci alalam ki am kàttan def ci kàttanam ki am dooleem def ci dooleem waaye lépp nag ñu doole ko tënk ci benn kàddu muy kàddu kilifteef bu mag bi loolu bu ñu ko defee yaakaar naa yàlla mën nañoo dimbale lu ñu bëgg lépp ci njàng mi mën a sotti maa ngi jéggalu bu baax a baax li ñu doxoon ci waxtu xaw nañ cee jéggi ay simili wasalaamualeykum wa rahmatullah